yàlla la ñu bind nag xam ay nawleem wax ñu ni ngeen ñu musul ci moom moom moo xam nan lay musale fekke na lu déwén nit dina fekke te lu dal yàlla may ñu fekke ànd ak dal kon amee na la sant yàlla yàlla di koy sante ne la in shakartum la azidannakum bu ngeen sante ma doon leen lay di xalaatul nag yàlla doon ci yàlla musul su ngeen weddee inna azaabi Seydina Abdoulaye yàlla mu ne gën a daawal reen lu ne sama borom defal ma ko am na ñu fi newoon rek ku ne am na ñu ndax daanaka bu doon bu ne salli bi taslimika yaa qawiyu ala alladi sumatuhu mahdiyu yàlla yàlla nga julli te jàmmal te ka nga xam ne bokk nga ci juróomi yëpp di ko waxal baal kon bàyyi laay suñu mënu ñu ma mën a tey waxu xaari mën solo war naa am gëm ne bàyyi laay mooy mu mën moo ma def mooy tey salli bi taslimika yaa qawiyu xaaral tey jii suuf maa ngi ko maa dégg kon mu njëkk bi ci boppam day dalee ka laa ma lay koy sonal lu daa la tey yaa ngi wax ne dinaa la ko sonal maa ngi ko sën lii wala lii ku yàlla jiite بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته uur bi ma la wax di jullee ci toog yi daal ñëpp gàttal loolu kon nu ngi julli ci waxtu waaye jëm ba ba tey Seydina Isa moom moo meññ Cheikh Ousseynou Lahi du pour rien ñu tuddee le docteur de la jeunesse gis nga at thème bu ñu fi mën a indi Cheikh Ousseynou Lahi jàngale na ou des incertitudes pourront produire des explosions de violence ou de peur. Dans le domaine social, dans les utilise la est un événement social ou personnel, mais qui se caractérise par un paroxysme des souffrances question de violence ou de la révolte bu demee ba nga xam ne def kontaan nga xam ne contradiction yi gis ngeen mu ngi noonu lii lañ leen andiloon fi nga xam ne moo di appel de la jeunesse 29e édition fii ca Cambérène ci jàmmalaay dégg ngeen kàddu yi nga xam ne moo fi bàyyeekoo ci ki nga xam ne moo di porte parole xalif général des Layènes waaye tamit ministre bi nga xam ne moom lañ dénk ndaw ñi mooy ministre de la jeunesse dégg nga li nga xam ne mooy kàddu yi bàyyeekoo ci moom muy ministre bi ak ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon mbokk yi di leen jaajëfal bu baax a baax di ñaan yàlla ñu fekkee ko at yu bëree bëri. bu ren bi jàll na ñuy xaar appel bu déwén di leen ñaanal fanaan ak jàmm programme Lou'Bess TV jërë ngeen jëf mbokk yi ba déwén incha allah.